maaleykum wa rahmatullah sëñ Gora maa di ziar waa Sénégal yëpp di ziar waa àdduna di ziar ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre waa bi di rafetlu bu baax dalal gi ngeen ñu dalal vraiment ñu ngi ci am fierté bu baax am ci mbégte bu baax a baax am ci contentement di la remercier encore une fois ndax lépp sa loxo la jaar di gërëm waa bi yëpp vraiment nuyo bi dama koy jël rek teg ko sa loxo comme d'habitude bon nga jàllale ma ko ci gars yëpp ñu ngi bëggee télé bi bu baax a baax di kontaan ci ñoom macha allah wax dëgg yàlla seen liggéey rafet na lépp ñu ngi ñu seen lépp daal wax dëgg yàlla vraiment. waaw ñu xool seet na ci yéen bu baax a baax a baax. waaw loolu moom sama jàngat gi ma ci def comme en tant que citoyen citoyen sénégalais comme ñi ko ñëpp di gisee noonu laa ko gisee ko il paraît que rafetlu naa ko comme ñëpp bon aussi am nañ ci mbégte bu baax a baax parce que mën nañ ne koo xam ne yaa ngi doon yootu benn affaire yàlla dem ba jotale la ci ngay dem ba di ci am fierté ba di ci am ay weer ba nga xam ne yow yaa ngi yëg ni yow diiraa bi nga fi def nga di ko nga di ko célébrer vraiment loolu pour man fierté la te aussi. wane na ne ku nar a liggéey mooy mooy doxale noonu quoi vraiment. waaw franchement parler wax dëgg yàlla sama xel dal na ci quoi parce que 100 jours du ñaari fan du ñetti fan te aussi du mën naa ne bëri na bëriwul. mais il paraît que wax dëgg yàlla ci biir 100 jours yi def nañ ci loo xamante ne wax dëgg yàlla ku am taxaw seetlu ak ku am gis-gis di nga xam ne ñii kat vraiment ñu ngi ci yoon te aussi euh, seen yéene mooy defar dëkk bi quoi wax dëgg yàlla ñu ngi koy rafet lu baax te am nañ ci yaakaar daal wax dëgg yàlla waaw amaana premier mandat il paraît que nga def euh, résultat yu bëri quoi. waaw loolu encore une fois rek comme li ma ci doon wax rek xam nga nit ki moom il paraît foo xam ne gars yi ngi koy occupé te état soxla ko wala mu nekk place publique il paraît que bu ko gars di occupé bu ñu leen bu ñu fay jëlee loolu moom yoon la loolu moom kenn waru koo mën a bañ parce que réew moom lu koy doxal te teg ci yoon yëpp intérêt ñëpp la quoi vraiment. mais li ci gën a jiitu mooy jaar foofu sensibiliser leen wax leen ba gars yi dañuy wàcc seen bopp. aussi ñu am fu ñu leen orienté loolu gënoon na rafet daal moo gënoon xeex bi parce que Sénégal daal wax dëgg yàlla fi ñu toll ji na mu ñu xiiroo ak ŋaayoo ak xeex ak yooyu wax dëgg yàlla loolu pour man passé na si ginnaaw quoi li ci des mooy ñu xool li nekk si kanam jéem a doxal suñuy réew ñun ñëpp bokk ndey bokk baay ànd boole suñuy doole suñuy xalaat vraiment ñu xool ni réew mi avancé ñu nekk si neen kii quoi moo gën ko loolu moom wax dëgg yàlla rafetlu xeex boobu rafetlu ma ko wax dëgg yàlla waaw conseil bi may joxe mooy li wax rek encore na sénégalais yëpp xam ne Diomaye mooy président président Bassirou Diomaye Faye son excellence mais ñun ñoo ko war a mën a jàppale ak gouvernement am jàppale bi mooy li nga xam ne du yoon bu ci kenn dox li nga xam ne yoon da koy aaye nañ ko bàyyi fi nga xam ne place la boo fa tegee yoon da koy soxla wala yoon euh, mayewu ko bu ko kenn def na ku nekk def li nga xam ni moom nga war a def nga def li nga xam ne moom la la yoon may su ko defee réew mi dina neex ñun ñëpp ku ne gis sa bopp mais xiiroo bi ak ŋaayoo bi ak dem foo xamante ne wax dëgg yàlla place publique nga di ko occupé dafa def loo xam ne il paraît que li gars yi def nii rek ci euh, kii bi ni ñu koy waxatee bale bi ñu def sa euh, samedi premier mois ci samedi bi loolu moom lu rafet la loolu day wane ne bëgg nañ dëkk bi mu leer bëgg nañ dëkk bi mu set te aussi tamit balaa ngaa mën a liggéey mën a am koom-koom il faut nga set set ci xel la jiitu xel xel bu setee sell la fa nga dëkk mu set sell la ah pour man loo bëgg a exploiter rek di nga ko mën a def te loolu tamit soxla nañ ko ci réew mi daal gis-gis gis-gis yi ma mooy avant tout président la république sénégalais moom mun nangoo wàcc terrain bi naan damay bale xam nga loolu acte bu rëy la vraiment loolu moom franchement parler euh, signe la boo xamante ne day wane ne bëgg sa réew li ma doon wax rek laay waxaat bëgg sa réew loolu bëgg sa réew lay wane. ndax tey jii ñoom am nañu waa ICG mënoon nañu bay leen bàyyi ñuy bale parce que ñoo waa ICG ñoo mais boo gisee président di wàcc terrain bi naan tous les sénégalais nañ ñëw bale xam nga ne loolu vraiment bëgg sa réew weesuwul loolu en tant président loolu moom acte gënu ko nice te acte gënu ko doon acte noble vraiment wax dëgg yàlla franchement parler waaw tamxarit ñu ngi koy dëmal ak jàmm ñu ngi ñaan sunu borom tabaaraka taala mu yóbbu ci ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim ñu génn ci alhamdulilahi rabbil alamin euh, sunu borom dafa ñu ci xewal dafa ñu fekkee déwén ak jàmm ndax xam naa ne at mi at bu bees la atu tamxarit bi yàlla nañ ci dugg ci bisimilahi rahmaani rahim ñu génn ci alhamdulilahi rabbil alamin lépp luñ ci yaakaar ci lu baax rek sunu borom defal ñu ko ñu am ci lu kawe sunu njort ci baje bi jaay nabil Moustapha barki yonent yàlla Muhammad Euh, gis-gis bi may ci am mooy encore li ma la waxoon ci tabaski bi mu jub si xam nga waxoon naa la ne nag yi day manqué yàpp day cher il paraît que ba am ma doon wax ba léegi na ni may wax ak yow nii am na ñoo xam ne waaw ñu koy jaay 4200 ba 4400 te bi ma koy wax boobu kilo yàpp mi ngi jar 4000 li waral loolu mooy li ma doon wax encore une fois ci lay ñëwaat du ma di wax parce que booy faj góom da ngay fii metti nga defa mooy Sénégal il faut ñu concentrer ci wàllu éleveur ak wàllu mbay ñaari yooñu bés bu ñu demoon ba concentrer ci ba am ci lu ñu bëgg incha allahu rabbi du ñu mos a manqué euh, jur ñaareel bi mooy ndawal bi dinañ ni ñu bëggee mu yombee fii dinañ ko amee incha allah parce que ñun comme li ma la waxoon la fois passée amuñu ay nag dañuy dem di jëgaane te ñi lay jaay ñooy na peut être taxi yeeg ak fi ñuy jaar ba ñëw ak liñ ci fere xëy na loolu lépp dañ koy bëgg génnewaat ci seen liggéey yow nga nar ko jënd dem ko dem di ko jaayewaat xam nga boo yoree place nar a fay ay location ak li ci war xam nga affaire du yomb daal vraiment mais mbay mi ak sàmm moom fa laay insiste du ma tàyyi di ko wax ba keroog ñu ma ciy wuyu ministre bi vraiment na recevoir boucher yi ñu waxu seen i jafe-jafe wax ko ban problème la ñu am ba nag mënu fee yomb loolu il paraît que bu bu bu ci ministre bi taxaw woon rek boucher yi am nañu idée am nañu ay xalaat am nañ ci xam-xam dinañu waxtaan ak moom ban point mooy metti su ko defee bu ko saafaraa rek ndawal dina yóbbu Sénégal te ñëpp nañ ci gis seen bopp vraiment. waaw euh, avant maa ngi nuyuwaat sama waa association des bouchers. ci njiitalu Pape Thiam di nuyu ñoom si nja daam mbay Massi joor di nuyu ñoom grand góor gi ngay cité Aline Sow Pape Ndiaye benn brak sama grand frère maa ngi koy ko nuyu di nuyu sama gars yi nekk euh, Touba ñoom sëñ Mbacke Dieng Thierno Dem euh, Thierno Diop Serigne Mbacke Samb Fallou Diop ba Ziguinchor maa ngi koy nuyu vraiment gis message su gars maa ngi kontaan ñoom Thierno Dem maa ngi lay nuyu bu baax a baax Ousseynou Diallo Basirou di nuyu sama gars yëpp vraiment message yaa ngi ñëw loolu mënuñu cee ñàkk quoi mais li ma la ko waxee encore ndawal du yomb tamxarit bi parce que li tax ndawal du yomb mooy li ma la waxoon ñun ko jaay dañu koy jaay lu cher tamxarit bi ma wax la loo xamul kilo yàpp di nga ko gis 4500 waaw dina am 4500 parce que actuellement nee naa la am na ñuy jaay 4400 4400 mooy 4500 te aussi nag yi dafa dafa arrêté ñëwatul boo demoon foraan yi bu fekkoon ne 10 euh, camions ñoo doon ñëw chaque jour exemple instant yi 4 camions mooy ñëw ni ma la ko mën a joxe exemple léegi fu 10 doon ñëw muy manqué bu 4 ñëwee nan lay demee day gën a tar voilà day gën a yéeme te li ma la wax rek moo ci nekk parce que ñi nga doon yor seen nag yu bëri dañoo yóbbu seen nag màngaan yi ci àll bi ñi ñi ci dañuy xaar asamaan si taw ñax am nag yi suur ñu doo ko indi doo ko jaay loolu nag temps bu jël lu mu gàtt gàtt un mois 15 am yàpp doog a wàcc Sénégal mu doog a yomb quoi vraiment moom lu mu gàtt gàtt nañ ko am seeraay bi moom fa la waaw problème bu ñu amul problème dawal aussi euh, dinañ ko jëndee lu cher te jëndee lu cher rek problème la parce que normalement Sénégal kilo yàpp waroon na fee mën a jar bu seeree ba seer 3500 las seeraay yàpp warul weesu 3500 te loolu encore une fois li ma ci waxaat mooy état bi laay ñëwaat rek état bi tey jii bu bu élevé woon bu produire ay jur muy élevé da koy mën a jaayaat boucher yi waa ilaa secteur boobu bu ci mënta dugg mu recevoir boucher yi ko ci lu wóor gars yi liggéey su ko defee ñu nag ñu koy jaay ci bascule war naa mën a nekk nag buy dund war nañ mën a ñëw mu yëg ci kaw bascule ñu calcule ki kilo à 2500 ak ku mën a jaay état bi loolu bu ci état daal lu bu bëggee doxal loolu war na ko mën a doxal lépp mi ngi aaju ci bu recevoir bouche yi dinañ ko wax problème bi fan la ak jafe-jafe bi fan la su boobaa lañ trouver solution nag war nañ ko mën a yéegal ci kaw bascule nag buy dund laax de ñu jaay ko ci kaw bascule calcule ko à 2500 loolu bu ci état bëggee taxaw day am léegi ku mën a jaay loolu ñu ñu yéeg ku mënta jaay loolu moom ñu a jënd nagam ba ci xaru tabaski pourquoi pas. waaw comme ni ma la ko waxee ne état bu defoon bu recevoir woon yi mu laaj leen qu'est-ce que ça passe bu si dinañ ko wax ne ah jafe-jafe yàpp bi de ak lii ak lii ko waral su ko defee dina laaj bu solution te il paraît que bu si ay kàngam la ñu am na ñoo xam ne xarañ nañ ci bu baax xam solution bi ñun am nañu àll bu yaatu am nañu suuf am nañ ndox ñun manqué wuñu dara macha allah yàlla euh, cëral nañu lépp daal léegi bu ñu doon élever ay jur si suñuy biir état bi pourquoi pas mu mën a élever ay nag di ko jaayit boucher yi ma jox la euh, euh, nuñ ko waxate exemple boo xam ne lu simple rek te te te te te doon pédagogie lu mat ñetti téeméer nag day dee Sénégal chaque jour est xam nga loolu dakaar laa wax sax nag du ma ne Sénégal lu mat 1500 bëf day dee Dakar chaque jour Dakar laa wax de boole ma ci Tamba Ziguinchor Mbour Touba Thiès Tivaouane Kaolack yooyu boolewu ma ko ci biir Dakar lu mat 1500 bëf daf fiy dee chaque jour 1500 bëf weer bi dee loolu 45000 bëf la 45000 bëf loolu ñaata milliards la te ay nit a koy indi di ñu ko jaay ñun ñu koy jaayat parce que ñun boo sóoraale woon chaque jour ñetti téeméer nag ñu koy jël ci nagu sénégalais yi et même pas mois Sénégal doo fi gisati nag loolu day wane ne ñun y' a problème ci sàmm bi état bi nag na ci insister nañ ñëw finance bouche yi wa illaa mu élevé jaayat bouche yi amuñu jur de fi ngay xamee ne amuñu jur bu tabaski jub see rek li ñi ngi xalaat kan Mauritanie wala Mali wala Burkina mais pourquoi pas ñu toog benn tabaski boo xam ne lépp jógee suñ dëkk ñu consommé fii lépp am suñu juru bopp ñëpp yemal ko suñ dëkk loolu vraiment ñu ngi ci xaar état bi quoi te aussi suñu développement pour mu gaaw ak euh, ñu gis ci suñu bopp ci suñu réew vraiment il faut ñu dem ci mbay mi ak sàmm mi mais président de la république ñu ngi koy gërëm vraiment di ko remercier gis naa ne euh, mbay mi mi ngi ci wax bu baax a baax te mi ngi ci def ay jéego ndax seetaan naa discours am déglu naa ko xam naa ne bàyyi na béykat yi xel bu baax a baax daal vraiment waaw normalement comme ni ma la ko waxee fii ba ma fii ba un mois 15 jours yàpp du yomb Sénégal li tax du yomb mooy nag ñi yoroon nag yi ci àll bi ñu ngi xaar ñax mi jàpp seen nag yi suur ñu doog a ñëw xam nga nag bu yooyu waaw dañaa dem màngaani xaar asamaan si taw te xam nga nawet bi xam naa dafa xaw am retard léegi il faut ñax génn ba nag yooyu suur ñu doog a ñëw ñu jaay si léegi fii xam nga mi ngi doog commencé taw daanaka gisoo fenn fu jur gi commencé lekk ñax il paraît que dina am un mois 15 jours ñax mi doog am jur gi doog cee lekk ba suur la temps ñuy ñëw xam nga loolu diggante boobu day day difficile te ñu ngi demal ci benn événement muy tam xarit encore màggal gàmm yooyu yëpp ay événement yoo xam dañu soxla ndawal bu baax a baax a xel bu baax ci wàllu élevé bi moom wax dëgg yàlla ma taay di ci wax quoi parce que góom la boo xam ne dafa jar a laal te aussi problème la bu rëy ndax mënuñu chaque jour kilo yàpp muy cher Sénégal ñu di ko kaas di ko kaas client bi sax yooyu ñu ñuy jaay sax billaay client bi day ñëw mais da nga koy yërëm ndax yow mi jaay da nga xam lii nga jaay dafa cher mais mënoo ci dara parce que vraiment amuñu moyen ko vraiment. waaw bu ñax amee moom wax dëgg yàlla affaire dina wàcc ndax na fekk jur bi ñu doon ci àll bi suur na seen borom a ngi exemple bi lay jox bu fekkoon ne euh, chaque jour fora 10 camions ñooy wàcc nag exemple 10 bu 15 wàccee xam nga ne affaire dina lam dina bëri léegi nag ki bëriwaay boobu mooy tax muy wàcc da gis ku la topp sa naan la kaay ma jaay la sama nag mais actuellement nii boo doon dem di waxaale nagu nit ma fa nag ba ne du la fa fekk day toog fu mu toog ne la ñaata nga moom rek moo ko fa am wala ñaari nit ko fa am ñu ko soxla bëri nañu loolu mooy tax muy cher mais bu ñax amee moom incha jur gi dina ñëw te yàbbi dina xaw a wàcc quoi waaw ñu ngi ñaan yàlla daal ñax a am nawet gi sunu borom defal ñu nawet gu xéwale béykat yi tamit sunu borom defal leen xéwal ba lépp lu ñu bay gis seen bopp dañu nawet gu nangu nawet gu am naataange ñu ànd ak nawet gu am jàmm am xéwal daal ñëpp euh, euh, gis seen bopp vraiment ñu ngi koy ñaana béykat yëpp vraiment. jaayu yàbb ak jënd bi waaw difficulté yi ñu ci am bëri na trop trop du xaj du jeex ndax li ma la waxoon rek boucher moom wax dëgg yàlla bëri na jafe-jafe lool boo xamante ne mooy problème bi mooy da ngay demee say moyenu bopp. bien vrai que état mi ngi ciy jéem a def ay gëstu mais bu ñu gënee dugg ci secteur bi gën cee xuus gën a saafaral gars seeni jàngoro ndax problème bi euh, secteur boobu moom am na lu metti lu ci nekk quoi secteur boucher dafa doy waar. li ñuy jànkoonte ci njaay meeg jënd bi da ngay ñëw di jënd nag borom nag bi lay jaay nag bi xam na ne nag bi même boo ko jëndee mënoo cee jaay 500000 moom mu naan la 600000 la la koy jaayee xam nga ne loolu rek yaa problème yow da ngay jéem a négocier négocier ba jënd ko 500000 te wóor na la yow boo ko jaayee du weesu 500000 kon yow lan nga si am. voilà pertement la parce que yow da nga def ay frais ak sa coono bi nga ci am temps bi nga ci am mais da ngay satisfaire say clients aussi li sa métier la mënoo ko ñàkk def même bu doon gis loo xamante ne. Euh, boo ci génnee ci nga maanaam euh, li nga dugal ci bopp xaalis rek moom lay génnee il faut nga dugg si parce que day fekk liggéey bi mooy dem ba toll foofu mais vraiment wax dëgg yàlla encore une fois damaa bëgg état bi taxaw ci wàllu bu bi encore loolu du ma ci taayal mukk di ci wax nag ñu koy jaay ci kaw bascule pourquoi pas bu nag bi ñooy yëg ci kaw bascule bi ñu xam ñaata kilo la am ñu calcule ko bu amee 150 kilos 100 kilos bi la ñuy kilos bi yëpp mooy topp li nga xam ne mooy nettoyage ak der bi ak bopp beeg seen xam nga cinquante kilos mu ñu bàyyi ko ñu taar li may wax boucher xam nañ ko 100 kilo bi nga fay ko borom à 2500 loolu état pour mu taxaw ci na élevé commencé élevé di jaay léegi nag képp ku indi say nag nga jaay lu cher fekk état bi am na ay nagam jaay ko boucher yi sa nag ñu wax la lii la ñuy doxale yow nangoo doxal loolu ñoom ñu bàyyi la topp liggéey ak état bi état bi dañu jaay ay waaw gàllankoor yi ñu am comme li ma la wax rek gàllankoor yi ñu am des fois euh, comme li ma la wax du ma ko tàyyee mooy nag bi nu muy ñëwee Sénégal xëy na fu muy jaar borom di jaar ay taxi yeeg yooyu am plus que ne ñoom dañuy jël seen nag bëgg a jaay nag bi lu muy jar ak souvenir bi ñu am ak moom dañu koy bëgg a jaayalee ni ma la ko waxee encore noonu laay ñëwaat rek nag boo xamante ne 500000 lay jar nga ne mu am wa ilaa bëggoo leen ngeen boobu boo ci boolee say ferek say affaire daanaka même bu génnee li muy teg as néew lay doon te yow mënoo ñàkk jënd loolu parce que yow da bëgg satisfaire say client wala say client ñu lay xaar tam xarit bi rek maa ngi ay commande yoo xam ne client yi di di nga liggéey ndax ndaw la tam xarit dinañ ko am xam nga client dina ko demande te yow xas ngaa jël say client taamal leen loo xam ne mënoo dellu ginnaaw il faut que même boo gisoon lu cher di nga ko jéem a jënd pour satisfaire say client parce que dina metti nga perte wala mu metti doo si am dara mais événement bi nga jéem a xool nooy satisfaire say client ba bu événement bi jàllee xëy na yàlla dina mën a def bu nag yi ñëwee mu wàcc rek nga am ci dara quoi mais actuellement moom ñu ngi dund ay coono franchement parler moom vraiment waaw message bi li muy doon mooy comme encore une fois ni ma ko waxee rek Sénégal li ñu consommé ci yàpp daa bëri il paraît que am nañ ci ay seetlu ñu ci def ak ay gëstu su ma ji juumul def nañ daal nee nañ ginnaaw Amérique Sénégal moo ëpp ginnaaw Espagne xawma Amérique Sénégal moo ëpp lu muy consommé ci yàpp ci àdduna bi Burkina ah, à part ça parce que euh, ñooñu xam nga ñun boo xoolee euh, niñ li ko gars yi di waxee euh, pays musulman yi majeure partie musulman yi ñoo ci ëpp te même bu dul loolu daanaka yàpp nag ak xar bëy moom la ñu lu ñu consommé ñun ñi mais yeneen réew yeneen ndawal yi xam nga dañ koy consommé moo tax li ñuy consommé ci yàpp nag Sénégal maanaam euh, adduna bi Sénégal moo ëpp lu ñu consommé ci yàpp nag parce que ñun boo xoolee ñetti ndawal yi la am nag xar bëy à part ça xanaa jën bi ak ginaar yeeg ñoom seen mais yàpp bi moom Sénégal lu muy consommé ci yàpp bëri na trop trop trop trop message bi mooy encore une fois état bi na taxaw ci secteur bouche bi loolu rek mooy solution parce que ñun depuis dix ans si ginnaaw ñu ngi def ay pexe di def ay gëstu lu ñu xam rek pour yàpp yomb ñu ngi koy def pexe bu ñu mën rek pour jéem a def ay affaire pour yàbbi yomb dem nañu sax ba buus yi di jënd nag nagu bopp di épargner pour bu heure bi jotee nga jël say nag liggéey ko mais yooyu boo ko liggéey un mois day jeex wala 15 jours rek du la léegi il faut nga obliger wàccee ci terrain bi dem di jëndaat lu cher li nga doon bañ parce que moo fi sas te aussi euh, situation oblige quoi waaw message bi daal mooy loolu quoi wala wa illaa soit état bi tamit bu ñu jëndee seen i nag parce que nag yàpp dafa am diina boo xam day tar comme bu ñu waaj a tabaski ba nawet ba bi bi ñëw yàpp day tar état bi tamit bu mënee stocké ay nag yoo xam da koy élevé ba jaay boucher yi voilà nga xam ne heure bi nag di yomb gars yi di bi fekk ne mi ngi réservé ay nagam non su boobaa dootu seerati te loolu stratégie la boo xamante ne wax dëgg yàlla gouvernement bi bu ko mëgee a war na ko mën ñu bu ñu évacuer ay quelques bëf di xaar avant nawet diggante bii nga xam ne ñu ngi dund coono état bi a indi ay nag di ko jaay boucher actuellement su ko defee nag ñee doon ñëw di jaay lu cher loolu dañu leen xoolati bu ñu demee ba yomb ñoom ñu ñëw ñu àndaat ak ñoom parce que lépp tamit euh, pour sa dund yomb te mu neex aussi yaakaar naa yow yaa ciy def sa jéego te am nañu confiance ci suñu président am nañ ci moom rafet njort bu baax vraiment gis nañu mi ngi liggéey mi ngi si yoon mais dañ koy gën a jox lancer message ci côté éleveur côté wàllu éleveur bi daal dañ ko ciy lancer bu baax a baax a baax a baax na ci gën a béy waaram te aussi ministre bi na recevoir bouche yi bouche yi ko wax seen i jafe-jafe ko wax seen li ñuy dund ak secteur bi ban problème la am su ko defee aussi dina ci déem a béy waaram amaana coono bi ñuy jànkonte yëpp dina jeex daal am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax vraiment waaw man maa ngi leen delloo jaajëfal bu baax di kontaan ci yéen soo góor sëñ góor a ma sa fay vraiment wax dëgg yàlla encore une fois KSTV bi moom nee nañu wax dëgg yàlla bi gaa yëpp ñu ngi naan télé bi rafet ni muy doxee kontaan nañ ci bu baax a baax a baax a baax ndax wax dëgg yàlla foo jafe-jafe nekk rek da ngeen dem ba foofu souligner ko wanee ko euh, message bi jàll su ko defee bu ci gouvernement bi jotee saafara day am sama gars yi nekk euh, bitim réew maa ngi leen di ziar bu baax a baax les les émigrés là maa ngi leen di nuyu di leen ziar di naan encore une fois euh, état Sénégal na gestu moodu moodu te xam ne sa doomu réew bu génnee dem beneen réew. amaana li yoo xam ko woon wala mu fekk fa lu difficile léegi rek sa njiitu réew moo la a taxaw il mu ngi ci bay waar mais na gën a gestu moodu moodu yi bu baax a baax a baax te xam ne gars yaa ngi dund ay jafe-jafe foofu ñu ngi fay dund loo xamante ne état rek moo leen mën a jàppale di gërëm waa Espagne waa Amérique Italie di gërëm waa Angleterre waa France sama gars ñu may envoyé message vraiment ba Mali sax am na gars yu may envoyé message di ma naan la bi rafet na wax dëgg yàlla ñu ngi koy rafetlu di gërëm waa kaas yëpp sama gars yi maa leen di kontaane bu baax a baax di gërëm sama copain sama frère Léo Mac Faye kooku moom wax dëgg yàlla sama waay la sama xarit la dañuy job ci lu bëri bëri maa ngi kontaan ci moom bu baax a baax ba depuis Bambey vraiment di gërëm waa sama waa li ki dalee yindaan duuñaan mbësiyaan mbaraglu ogg gi ma dëkk maa ngi leen di nuyu di leen ziar ba pànjeen ak pambaal ak yëpp maa ngi leen di nuyu ba tund njaafuñ a lim rek ma juum la dalee yindaan di nuyu di leen ziar di leen naan seen doom a ngi nii vraiment maa ngi sàkku ñaan ngeen ñaanal ma di ñaan sunu borom def jàmm ci réew mi yàlla def si xewal def ci teranga ak sutura di gërëm sama monsieur le maire Lamane Lazare Thiaw vraiment ñu ngi kontaan ci moom bu baax a baax aussi ñu ngi gis def na liggéeyam mi ngi ci liwaar wi ndax li ma la waxoon la fois passé wàllu ndox mi moom dëkk bi foo dem am na ndox wax dëgg neex yàlla jafe-jafe yi ñu doon am amatuñ ko léegi en plus que ne courant bi aussi foo dem mi ngi leer macha allah liñ la fale woon monsieur le maire rëcc wuñu ko fi nga teg sa tànk foofu la vraiment li ñu lay ñaanal wér rek ak kattan gi yàlla taxaw la la ba sa yéene bi nga am ci tund Pambal yëpp sunu borom may la nga yéggale sa liggéey ndax vraiment gis nañu bëgg nga sa gox te yaa ngi ci liggéey bi loolu moom rafet nañ ci njort bu baax a baax a baax vraiment encore une fois di nuyu sama frère euh, Abdou Faye Yindane maa ngi lay ziar la béggee bu baax a baax di ziar sama grand depuis Brésil Ndiawar maa ngi lay ziar di la naan amal jàmm yàlla yàlla defal jàmm di nuyu Sénégal yëpp moom partout dans le monde di nuyu ñëpp ñu ñu suivre vraiment kontaan naa ci ñëpp quoi vraiment franchement parler